également avec les chefs d'agence et les parieurs. Et ensuite, euh, nous aurons également une autre vidéo. Donc ça, ce sera une surprise, euh, vous verrez tout à l'heure. Et euh, le plus important, c'est la remise de la chèque, pardon, du chèque, du chèque factice. Donc le, la remise du chèque factice, mais après la remise du chèque réel, donc que nous avons donné à notre heureuse gagnante, qui est aussi belle et qui, qui est là parmi nous. Et après cela, nous allons tout simplement avoir une autre prestation Euh, d'artistes euh, comédiens. Et après, euh, monsieur le coordonnateur qui représente le directeur général de la LONAS dira son mot et son suivra un de bienvenue. Donc nous demandons à tous également leur attention. Et sans plus tarder, je donne la parole à monsieur Assoum, donc, qui est le directeur général de Premier Sénégal. Merci à la LONAS et monsieur le coordinateur de nous avoir invités, d'avoir invité Premier Lac et Premier Sénégal. Merci à monsieur le directeur commercial réseau, merci à madame, à madame la directrice marketing et communication. Merci à vous tous euh, d'être ici présents. c'est toujours une, grande joie et une grande fierté euh, de représenter Editech Premier Lac et de participer à cette remise de chèque, et c'est une remise de chèque

chaleureusement. Merci à tous et merci aux joueurs aussi de jouer, de continuer à jouer euh, à ce jeu. Et voilà, merci bien. Je voudrais d'abord euh, transmettre euh, nos salutations au directeur général de Premier Sénégal, M. Eric Assou. Euh, remercier également l'ensemble de nos partenaires qui sont ici présents, notamment la presse et l'ensemble des équipes de la LONASE qui ont, qui pour euh, cette importante cérémonie euh, qui consacre la remise de plus de 72 millions à une gagnante, Madame euh, euh, pour nous a une symbolique le deuxième plus important montant remporté dans notre jeu, c'est l'auto-jackpot, euh, depuis sa, sa, mise en place au Sénégal. Euh, ça, c'est une grosse satisfaction. Nous avons toujours vu des gagnants remporter des montants importants, mais nous avons aujourd'hui un montant de 72 millions, presque 73 millions, après un premier gain qui a eu lieu il y a quelques années et qui portait sur 78 millions. Donc c'est un motif de satisfaction. Euh, et c'est également l'illustration de non seulement la pertinence de ce jeu et de son slogan, Vivez vos rêves, mais également euh, l'importance de l'accueil que les parieurs de la LONAS lui ont accordé depuis Euh, qu'il a été en place. Le 456 euh, s'appelle 456 depuis le mois de mars, comme euh, la maître de cérémonie l'a rappelé tout à l'heure. Avant, le 448. Alors, changé la formule, c'est après avoir fait beaucoup d'études le niveau de satisfaction, nous avons remarqué qu'on pouvait en augmentant les chances de gain de nos parieurs. Parce qu'encore une fois, et je ne le cesse pas de le rappeler, notre partenaire dans le cadre de ce jeu, qui est Premier Bet de Editech, est l'une des références les plus importantes en matière de loterie à travers le monde. C'est aussi notre conseiller. Et quand nous avons ensemble réfléchi à comment faire pour augmenter les chances de gain et rendre plus attrayant le jeu, nous avons ensemble décidé de passer de 4,48 à 4,56 depuis le mois de mars. Et Madame Fall l'a rappelé, depuis le mois de mars, nous avons une vingtaine de gagnants. Euh, et avant, depuis le début de l'année, nous avions également, avec l'ancienne formule, également une vingtaine de gagnants. Et aujourd'hui, depuis le début de l'année, nous sommes fiers d'annoncer que pour ce jeu, que nous euh, exploitons avec notre partenaire Premier Sénégal, nous avons pas moins de 40 gagnants pour une somme de environ 700 millions de francs CFA. Donc quand la LONAS dit qu'elle crée des millionnaires, on en a la preuve et l'illustration aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un motif de satisfaction parce que l'une des missions de la LONAS, c'est également de permettre à ces parieurs de réaliser leurs rêves. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'un millionnaire ou une millionnaire vient s'ajouter à la longue liste. Et c'est l'occasion pour nous de prier pour euh, elle, pour euh, son époux et de prier Dieu qu'il les aide et les assiste dans la réalisation de leur projet et l'utilisation à bon escient de cet important montant. Euh, on l'a dit dans les différents reportages, nous sommes dans un pays où l'économie n'est pas réluisante. Euh, les besoins familiaux sont énormes. Et la LONAS, qui est une institution sociale, tente chaque jour de contribuer au relèvement du niveau de vie des populations, notamment de la population de ses parieurs. Donc nous sommes toujours contents de remettre des chèques. Nous aurions bien aimé être à la place de ces bénéficiaires. Malheureusement, la répartition des rôles a fait que nous sommes là pour remettre des chèques à des bénéficiaires. Donc nous partageons leur bonheur, nous partageons également leur fierté d'avoir comme partenaire la LONAS. Je voudrais terminer en me félicitant encore une fois de l'accompagnement de Premier Sénégal, qui est un partenaire de choix parmi d'autres, euh, et également la disponibilité du responsable de Premier Sénégal ici à nos côtés, comme toujours, à l'occasion d'événements de cette nature. Féliciter enfin et remercier euh, nos partenaires de la presse qui nous font, disons, de la bonne publicité, qu'il s'agisse des organes de presse traditionnels, qu'il s'agisse également des sites et des réseaux sociaux, et de nos amis les influenceurs. ne cesserons jamais de dire que nous comptons sur vous pour faire la promotion de, des produits de la LONASE. Nous sommes satisfaits du partenariat que nous avons avec vous et nous continuerons, Inch'Allah, à essayer d'être à la hauteur de, de vos attentes et des attentes de nos parieurs. Donc je remercie tout le monde, je félicite la gagnante et son mari et je félicite également toutes les équipes, les de l'ONAS, notamment la DMC, et l'ensemble des chefs d'agence et autres directeurs qui ont tenu à faire le déplacement je vous merci donc maa ngi leen di gërëm di sant ñëpp ñi fi teew l'ONAS ak ay équipe am ak suñuy partenaire notamment le directeur général de Premier Sénégal di remercier tamit euh, suñu xaritu presse bi euh, organes yi fi teew yëpp nekk ak ñun ci partenariat bu yàggati dëgër ñu leen di sant di wax ne tey li ñu fi indi mooy remise de chèque comme ni ñu koy defee souvent euh, di jox chèque suñu benn client nga xam ne dafa gañe ci suñu jeu bi tudd seen loto jackpot euh, symbolique wu tey bi nag mooy benn ku jigéen moo gagné euh, muy madame War deuxième chose bi mooy montant bu am solo la parce que soixante presque soixante-treize millions la. mu nekk deuxième plus important lot ou deuxième plus importante cagnotte remportée par un parieur depuis bi ñu lancé jeu bi il y a plusieurs années benn gain moo ko ëpp mu nekkoon 118 millions il y a quelques années donc tey ñu am 73 millions loolu mbégte la si ñun parce que suñu liggéey mooy di présenter ay produits suñu partenaires yi ñu ñu ñuy wóolu ci jouer donc. Euh, di dugal seen xaalis quel que soit les montants ñu ci am loo xam ne mooy dundal société bi di ci am loo xam ne dañ koy reverser ci économie Sénégal comme ni ko slogan bi di waxee donc suñu toogee ba am suñuy parieurs yu gagné mbégte lay doon tout le temps moo tax ñuy euh, profité ci occasion bi di féliciter euh, soxna si gagné di ko ñaanal yàlla moom ak borom këram ñu mën a utiliser euh, somme bi ci ay projets yu am solo Euh, yoo xam ne dina leen jëriñ jëriñ seen njaboot. di lancer appel également suñu ay parieurs euh, parieurs yi mooy suñu raison de vivre ou de d'exister ñun en tant que LONASE ñoom suñu doonul woon jouer LONASE euh, heure bi fekk nañu suul ko bu yàgg donc mënuñu leen fay li ñuy góor góorgóorlu di def chaque jour mooy di fexe nekk à la hauteur de leurs attentes def ay jeux yoo xam ne am na solo mais di ko def aussi dans des conditions techniques extrêmement euh, parfaites donc loolu la ñuy jéem euh, bés bu nekk ak suñuy équipe donc loolu moo tax euh, ñuy demander parieurs yi nga xam ne ñu ngi wóolu Lonase yëpp ñu continuer di jouer te xam ne ku ci sa wërsëg nekk di nga nekk comme soxna si tey gagné ay montants yoo xam ne na la mën a permettre nga réaliser say projet di gërëm tamit suñu partenaire yëpp notamment comme j'ai dit kii nga xam ne moo fi teewal Premier Bet nekk ak partenaire bu am solo mais gis ngeen ne tamit ñun suñu nekkee partout à travers le pays dafa am ñoo xam ne ñoo ñu jàppale si euh, à la base notamment mooy les vendeurs am ne seen président association teew na fii tey muy monsieur Niang te fu ñu gestu fekk ko suñu gannaaw loolu ñu ci euh, gërëm également euh, les vendeurs seen présence ak seen accompagnement ak seen engagement ak détermination à côté parce que xam nañ ni ñoom ñoo ñu nekkal daanaka si naaj bi voilà donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, di féliciter encore une fois ki nga xam ne moo moo moo gagné di ko ñaanal mais di féliciter également toutes les équipes la LONASE notamment DMC ak euh, DCR je vous remercie. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ñu fi sant ñëpp maa ngi tudd Bakawaar maa ngi nuyu ñëpp. est-ce mën nañu wax tey jour bi nga gagné comment ça s'est passé nga def. waaw jour bi may gagné dama tenté sama sens rek waaw. ñaata yoon nga doon tàmbali tàmbali jël sur wàllu bi. non non mosuma joué loto. c'était la première fois. waaw c'était la première fois. waaw ah, ah. alors ba nga gagné ndax ban réaction nga njëkk am xalaat. waaw dama kontaan rek dama kontaan rek. Ah, projet yi lan nga xalaat. waaw projet yi moom comme ni ma ko waxee woon bëri na rek mais damay bàyyi monsieur après mu jël ay décision waaw ah, waaw maa ngi leen di lancer que ñu gagné ñu tenté change parce que c'est la chance qui gagne waaw waaw maa ngi koy jaajëfal kontaan ci ñoom rek ah, ah. waaw te lan ngay wax parce que mi nekk ci gis di message bi may wax que ne li may njëkk a wax ci message bi mooy somme bi ma apporté mu doon li ma jik m mu doon li ma jik waaw. Merci beaucoup. Ok. Jërëjëf.